Heavy Bass. nopp dalooti xibaaru bës tàmbaleeti waxoon leen ko dee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 wax jigéen dundal dëkkoo moo ndaw si nag li ko dal metti na ndaw si mu ngi dëkk ca Matam di wuyoo ci turu bee dee moom daal jëkkëram dafa tukki dem Gabon ne fa lu yàgg-yàgg naka noonu ci la gisante ak benn waay ñoom ñaar ñu nekk ca mujj cee nekk ba ndaw si mujj cee jëlee ëmb ay way bàyyi leen jabaru jàmbur yi ndaw si nag ba mu demee ba ne def na jombe ju rëy ndax mooy na jëkkëram ba ci ëmb te mujj jël ay responsabilité am ne du def lu jigéen ñi di def maanaam daw gàccee jël doomam faat ko mbaa mu sànni ko ma ne ko nag day benn bàkkaar moo gën ñaari bàkkaar ma ne ndaw si daal dafa mujj nekk ak ëmb bi ci kër gore yi làq leen ko ba xëy wasin doom bu góor bi mu wasinee doom bu góor naa ci la jógee ca village bi mu nekkoon dem ca beneen village village boo xam ne ab xaritu yaayam fa la nekk ngir mu wàllu ko suturaal ko bi mu egsee ba waxtaan ak xaritu yaayam boobu dal di koy expliquer li ko dal yépp naka noonu ci la ko xaritu yaayam bi yërëmee ne ko dina ko tiyal doomam suturaal ko waaye nag ndaw si ba mu koy jox doom ji xaritu yaayam bi tegalu ko ci benn condition naka noonu ci la delloo kër goro yi ne fa kenn sibul tinul ay wa yomb na de yomb de waaye nag à chaque fois bu ko jëkkër ji yónnee xaalis da ci comp envoyé ko xaritu yaayam bi mu dénk doomam ngir mu dundal ci doom ji bali yokk ci xar mi karaw nag ndaw si ka mu wolu woon ba yóbbul ko doomam ngir mu suturaal ko moo ko mujjee indil coono ndax daf ko doon santaas di ko laaj xaalis saa su nekk ngir dundal doom ji ndaw si nag bi mu demee ba mënatu ko ci la waxee xaritu yaayam mu dénkoon doom ji ne ko mënatuma ko si la ko xaritu yaa ji génnalee ji ko ne ko soo ma bàyyee yónnee xaalis dinaa la weer ci say goro weer la ci sa jëkkër kay Sénégal kenn du def dara ngir yàlla ndaw si nag bi ko xarit yaayam boobu waxee kàddu yooyu lu diis la ci moom ndax bëgg naa sauver sëyam te it bëgg naa sauver honneur am li mu mujj def mooy fexe ba récupérer doomam ci xaritu yaayam boobu ñëw ndakaaru njaay waaye nag li mu ñëw ndakaaru njaay yépp li mu def ci bopp bi nag mooy doomam jooju bëgg ko faat bëgg ko sànni moom daal li bëgg mooy wër ba gis ku ko teyal doomam maam dencal ko ko naka noonu ci la waree Dakar ba gis ab soxna soxna si daal di ko koy nangul soxna si nag gannaaw bi mu waxtaanee ak borom këram ñoom ñaar ñu juboo ci adopte xale bi ñu war ko téyel doom ji ba mu am dix-huit ans ay waay réew mi daal lu ne nga fii dégg moo tax ma ne jàngoro gi dal réew mi moo gën a graaw corona laa wax ay waay réew mi metti dee waa ji nag dafa takk jabar ngir bëgg dund ak moom dund neex tax waa ji dëkkee wammi maanaam sàcc ab bitigu chinois sa waay daal bu demee ci bitigu chinois bi di jënd bagage day ubbi saagam roño roño roño roñ ba xolam sedd waa ji mu ngi wuyoo ci turu MD moom nag li ko mujj daane mooy ab waay moo ko mujj gis yoole ko chinois bi chinois bi nag biñ ko xamalee loolu ci la tàmbalee sirwaye waa ji bala 8 janvier bi weesu waa ji dafa ñëw di jënd bagage chinois bi tendre ko pièce ndax dafa xaar ba mu ñaw tànn li muy tànn ba noppi chinois bi yónni ko cigarette bi mu demee jënd cigarette chinois bi ubbi saagam gis na waa ji sàcc na téeméeri robbam ak ñaar fukk ay waay bàyyi leen sàcc waay sawaay nag bi mu dellu see la ko bi ne niip yóbbu ko ca commissariat bu Médina ci kanamu enquêteurs yi nag sawaay nangu na ne moo doon sàcc ba benn frère frèram nangu woon a joxe cinq cent mille ngir chinois bi bàyyi ko li doy war nag mooy sawaay nee na li tax mu doon sàcc bitigu chinois boobu te yàgg foo jëndee mooy dafa takk jabar te mu takkee jabar ba léegi dafa gis ne bénéfice am dafay wàññeeku ma ne ko kii de xanaa ku yàgg ci célibataire la waay waay xam ngeen ne nag ku takk jabar say charge yokk moo tax dee leen takk jabar ngir ñeme responsabilité mu doon doonoon seen xibaaru buzz dig daje samedi ci yeneen xibaaru buzz